njëkkee joxe lu toll ci vingt cinq pirogue huit yeneen GIE nag dinañ jot seeni ay pirogue en fibre de jëlee ko ci ay loxo wu deer enveloppe nag bu toll ci deux milliards la ñu déboursé ngir mën a jàppale nappkat yi. ñun nag suñu gunge bi yamu fii ndax mu ngi itamit lu jëm ci fabrication glace yi construction yi accompagner euh, jigéen ñi ak ndaw lu jëm ci transformation produits halieutiques yi ñu ngi itamit ci gunge leen ngir ñu am ay caisse isoterme ñun daal dañoo gën a bëgg a sori ci mbir mi. initiative bu DER bi nag day dugg ci cadre bi nga xamante ne ni dina mën a protéger environnement bi wala itamit gën a yokk kaaraangey nappkat yi ci biir géej gi. Quand on de la pirogue en bois on arrête la coupe la coupe bu ñu bàyyee gaalu locca yi nag mooy nag dañu protéger environnement bi ngir nga am benn gaal rek nga dagg lu toll si ñetti garab gaal yu bees yi ñu indi tamit day gën a yokk rek kaaraange nappkat yi ci biir géej bi. qui, qui peuvent aller loin en mer d'abord euh, et aussi à sécurité aussi des moo Modou juuf nag bokk ci ñi nga xamante ne ni ñoo ñëkkoon a jot seen i ay pirogue en fibre de verre di xamle ni gis na bu baax ab yokkute ci biir liggéeyam. gaal yi ku nekk gis na ni duubul koog la boo xam ne dañ ko fabriqué bokkul ak gaalu bois bi comme yàlla ak yàlla yi. am GPS am am géolocalisation loolu dana permettre mool bi. bii dem géej dina indépendant ci li muy liggéey. Mhm. waaw parce que ñun ñu ñëpp bu njëkkoon bu ñu daan dem ay mareyeur nañuy liggéeyal ñooy tamit du duñu am yenn do yenn dogal ci suñu jën. soxla bi tam jëm ci pirogue en fibre de verre nag bëri na lool délégué général bu deer nag daal di xamle ni dina defaat livraison bu mujj bi fileeg fin du mois avril ngir rek mën a atteindre objectif bi nga xamante ne woon moo tolloon ci jox 77 pirogue ay GIE.